Euh, tey ñëwati nañ ci lu amati solo ku jë politique yi tàmbale na léegi nag kilifa diine yi ñu ma ko sañee wax laxasu nañ ci. Mm-hmm. ah balaa ñu koy farafànce rek dañuy daal dem régi nank ndax ku ne gis na appel line bi président Macky Sall demoon na fa Sonko itam demoon na fa am na ñaari wax yi jug yu nga xamante ne itam waroon nañ balaa ñu koy farafànce dañuy dox régi nank ànd ak élément bi xool lu ñu indil. li xewoon ci dëkk bi fan yii dëkk bi ñëpp ko waroon ma jamono dafa toll rek nit ñi dañoo ragal li ñu ragal kenn ragal a wax dëgg ngir bañ ko la wax dara loolu amul njëriñ ndax kenn ku ci ne ka xam ne mag lay wax dara it gëm-gëm ak bëgg-bëggam képp tax lay mbirum àdduna suñ yoon néew ci waaye lii dëkk Sëriñ Tuubaa bi nag ñëpp ko war a waggate sàmm ko te ñëpp teg ci seen bakkan nag lépp lu ko bëgg a yàqate ñun ñëpp war nañ ceet suñu bakkan te xam ne Sëriñ Tuubaa ñaan ñaan na jàmm ci àdduna te waxoon ne Tuubaa xarasahu Allahu taala kon nañ xam ne ñu àndal njiitu réew rek la ñuy waaye yéen gone yi ku leen neex mën ngeen ànd ak moom waaye loolu moo nekk ñun fii mu ne mag rek la ñu mën a àndal makki rek lañu ñu mën a àndal makki dong la ñuy àndal war nañu sàmm suñu diine ak nii ñu ko amee parce que ni lii la ñu xam ñun si lislaam parce que naa xam ne loo topp junni waratu ñëw naan dañ lay jàngal noo koy moo ñun de ku am leneen na jël waaye li ñu am Sénégal doy nañu. bu doon wërsëg wi nekk ci àdduna yépp tuuru na fii ci suñu réew te xol yi baaxuñu jikko yu baaxuñu du am njariñ. moo tax damay rafetlu thème bi nga xamante ni tànn ngeen ko muy paix et développement selon les enseignements de Seydina Limamou. nit ki nag balaa balaa jàmmal nit ñi na jàmmal boppam waaye ka toog. di woo ñu ni si jàmm jàmmalul boppam ñàkk jàmmal sa bopp mooy cër yi yàlla tàggatal la nga war katee sant nga kay say mooy waaye jàmmaloo sa bopp waaye bay jàmmal keneen ndax mooy kooku fa mu la jëmee fitna la sang bi ne lii ku ci ne dal la digal muy farata ci yow nga jàmmal leen jàmmal leen mooy nga ñoŋal leen doo leen bàyyi moyal leen ñu topp seytaane topp bakken bu boobaa jàmmaloo sa bopp yow bay wax keneen nanu dem si jàmm ñu daal seen xarit euh, ci message bi di fàttaliwaat ni dégg nañ ko bu baax a baax waaye liñ ci bëgg yokk ci lu gàtt rek li ngeen wax dafa am solo mooy ñun dañoo jëkk ni projet politique ñëw teg ko ci li charte kuréel bi li mu wax mooy démocratie mm. conquête pouvoir mm. ci jàmm ak dal ak li constitution permettre mm. wax ak sénégalais yi jaay leen projet buñ ko gëmee ñu demee fa ñuy tànnee su dee doy nañ leen ñu tànn jaaruñu ko ci voie militaire wala beneen voie sëriñ bi li xaw a ñuul ci mbir mi rek mooy bu dee ay nit dañoo jóg taxaw ne nag diw du egg fa ñuy tànnee foofu la problème bi nekk bu ay nit jógee ne jàpp nañ ni ànd naa ak doole te askan wi ànd naa ak moom ba dinañu dinañ ko euh, faqatal ba du egg fa ñuy tànni mm-hmm. foofu bu ñu bàyyee ñëpp ci seen teef ñu egg fa ñu war a yegg Sénégalais seet ki leen doy ñu tànn ko coow du am waaye ne yor naa sama justice te dinaa faqatal kii ba du egg fa ñuy tànne waaye yooyu mu yóbbante la ko incha dikk nga di ko dimbali ko mm-hmm. xam ne bu yàlla di nga egg di ne nag moom a jaax mais boo di nga egg di ne incha allah bu nee itam ubbil na nit mm-hmm. xéewal jëm ci moom amul kenn ku ko mën a dégg mm-hmm. bàyyi xel loola bàyyi xel yàlla ko gën moo tax ma dolli la loolu nga daarloo ko te xam ne nit bu ne woon tey di nga dee te sa bakkan waru faayam mhm. ala kulli xaal kenn mënu ci dara moom balaa agsi sax fekk na ji dootu allah ñoo ko déggandoo euh, daw na yaram mais ñu ngi nuyu sëriñ bi di ko ñaanal lay maxtaar yàlla na fi yàgg te wér te mu yeggali euh, mbébétu maamam ci keppaar gi waaye di rafetlu tam Ousmane Sonko xam nga wax euh, neex na mais déggin moo daax ndax dañ ne wax bu dafee sax nopp yoo koy dégg war a wér tey man dama rafetlu réponse am parce que tey bu sëñ bi waxoon rek moom mu génn dem dinañ mono dinañ monopoliser parole sëñ bi wax autrement wala ñu wax Sonko autrement fekk moom la mu wax war na ko wax xalifa la kilifa la parce que kenn ku ci dañu toll moment bi nga xamante ne nii boo toogee yow en tant que kilifa di seetaan bu mbir ne ne kër dañu naan ah anam mag ñi kenn du wax te mbir mii xew ci Sénégal dafa bëri te benn mag du wax ndax boo waxee ñu ne lu tax nga wax wala waroo wax mais tamit li ngay wax na nga teg ci dëgg ak diine ak yàlla tax mais Ousmane Sonko rafetlu naa li mu wax que ni euh, nga nekk ci yoon tamit ñu ne la doo bokk ci mbir pour lan donc sëñ bi indi na apaisement di ñaan jàmm ci camp yëpp man jàpp ma ne Sonko kese la wax. parce que man bi mu toogee Macky Sall man dégg naa ko moom mu ne nit ki mënoo koo xañ jàmm ba pare bëgg am jàmm. ba pare nit ki munoo koo wax ne ko munoo koo xañ jaam ba pare bu dee nga ne ko repose en paix te bi muy dund mayoo ko paix mais loolu tam ku mu neex nga ne sëñ bi dafa wax ak Macky Sall moom moom wax ji parce que moo xam nit ñi jàmm wala moo xam nit ñi nangam kenn ku ci nekk ak sa dégg kenn ku ci nekk libre nga pour déggee nu la neex wala nga waxee nu la neex mais lii wax ji daal na ñu bàyyi euh, jaay doole bi nañu bàyyi wax ju ñaaw ji kenn ku ci nekk muy sëriñ bi muy taale bi muy bëkk néeg bi xel puso la xale da koy for mag da koy for kenn ku ci nekk libre nga pour wax sa xalaat mais man li may ñaaw la ak li ma mënta concevoir ci suñu kilifa yi ak ñi ma ko sañ a wax am na yenn jotaay yu nga xamante ne man d'accord man si ñu ciy dugal tamit ci politique man juste man sama xalaat bu gàtt donc yow boo indee ay nit wala nga teg ay nit dundal la ci ñoom ci charia ñëwal ci fiqh ñëwal ci siira ñëwal ci tawxit ñëwal ci yàlla nee na ci ba nee na loolu kenn mënu ko bañ jàngale say mbirum maam jàngale say cosaana démb et tout mais tam ñu bañ a jël benn politicien bëgg lu ko neex wala lañ lay jox ba tax ya tamit nga lor ay nit ci ay kàddu man sama xalaat bu gàtt rafet ma ko mbaay réew mi yëngu na ak ñi ma ko sañ a wax sëriñ saa ngi wax ñii ñu ngi wax jaar nii ñee ñu ngi wax jaar nee kenn ku ci nekk nag yaa moom sa dégg ak sa ngëm ak sa topp lan nga ciy wax ci loolu ak lan nga ci xalaat ndax ku jë politique gi tàmbale na euh, euh, macha allah te du euh, kenn ku dul pouvoir ak opposition opposition voilà muy loo xam ne bambi lu nu fatt la muy loo xam ne ku ne da ngay bëj ci sa waar mm. kii day dem ne làng ne dem ne kii dem na le dem ne ku ne nag yaay xool ni nga ko waxee léegi ni ci sa biir wax mm-hmm. nga ne ku ne rek am nga foofu am am nga sañ-sañu mm-hmm. am foo xam ne fa nga fa nga far mm-hmm. mais nan nan def lu ne ci jàmm euh, dama naw euh, ki nga xam ne rek moom moo di porte parole laaye ni te dama ko déglu dama ko déglu tey avant maa ñëw di def ci émission euh, muy koo xam dama dégg ay waxam wax bi na mu saf ma torop ndax nit ki loolu lu dul jàmm jàmm ko gën te li mu wax dëgg la ki njëkk a wax président Macky dañu ko koo xañu koo bëgg a xañ jàmmam rek fekk ma ngi tey jàmm tey bam bi su ma xëyoon di la wutal jàmm chaque jour ma di la def di la naqa di la wutal di la di la tukk di la boo génnee ma am na ma def ak yow chaque jour ma di la ko def bu yàggee yàlla day ñëw ci man mu ni bambi mii nga bëgg a sonal yow laay sonal ba dootoo fa da fàtte bambi mm-hmm. bu ko defee mu sonal la mm-hmm. mais li mu wax tamit Ousmane sunk ñëw ci tontu boo xam ne tontu bu ma neex la mm-hmm. dañu wax neex na mais dégg-dégg rek moo am solo ba mu ko waxee ci mbirum jàmm dañu ko moom rek la ñuy wut te loolu lu ma ñor la te moom it bu ñu ko waxee loolu mu ni lii laay wut président Macky bu waxee tamit moom jàmm lay wut ñoom ñaar bu ñu muy ñoom ñaar ñu bëgg ku xam ne di nga bëgg ñoom ñaar bu ñu bëggee jàmm ci réew mii wax dëgg yàlla kon jàmm dina mën a am man de wax dëgg yàlla rafetlu naa li mu wax moom te maa ngi feddali sama colère ak moom moom ki nga xam ne moom moo di porte parole laa yéen laay maxtaar laay Seydina parce que dafa wax wax boo xam ne dafa am solo te nit ñi bi ñu ko déggee tey wax dëgg yàlla kontaan naa ci te wa ndaam naam Ousmane Sonko dañuy wax ne xam man wu ma ko mais tey ni ma ko déggee tey wax dëgg yàlla kontaan naa dëgg yàlla lu neex na def tey am na man li mu wax ci lu ma neex nee na bu yàlla bindee ci sa jëbi ne dangay doon président ala kulli aali da day nekk buñ la bëggee rey tamit te sa dee war jot doo dee ndax ku ne xam ne ne Ousmane mm-hmm. Sonko am na fi deegu foomu bari ki dee mooy jaay image ngi ci réseaux sociaux yi waaye wujj gu jeexul jugu fa mm-hmm. nañ yàlla musal rek may ñu xewal ak sutura te sàmmal ñu boppam ndax ku yàlla sàng ku ne doo liw maaj réew mu yëngu na mm-hmm. la waaw sa bam bi mm-hmm. loolu mooy euh, li ñuy wax naan yàlla buy rëdd mm-hmm. yow ngay effacé mu rëddaat nga effacé bu yàggee yow mi rëdd sax yow lay effacé mm-hmm. daal di daal di tegaat rëddam mm-hmm. ma ma ma ma ma rafetlu nag kàddu yi nga xamante ne ni porte parole bi wax na ko mm-hmm. mooy maam Libaas Laay ak Ibou Seyni dañu wax ay kàddu yoo xamante ne vraiment lu kàddu Ousmane Sonko neex neex neex neex keroog ba ma leen dégloo ci seen wax rawatina bay Antoine si Diome mi nga xamante ne ni moom mooy suñu ministre de l'intérieur yëkkati ay kàddu di woote jàmm mu ni ko jàmm de wax dëgg yàlla yow mi ñëw di wax nit ñi dañu bëgg réew mi am stabilité dañu bëgg jàmm alors que yow woote wuloo ko. Mhm. day day nduru leneen loolu daf daf daf ma xalaat loo rek mooy que ni yow mi nekk ministre bu bu yore wàllum intérieur ci biiru Sénégal. Mhm. Euh, nga taxaw fii mhm. dara ay événement am fii muy mars ñëpp fa ñëpp ñëpp teewe woon nañ li fi jotoon am ah nga ñu ñu ñu nit ñi génn. mobilisation bi xeex bi taroon lool nga génn ne Sénégalais yi. ak ki nga xamante ne nii moom moo tax peut-être ñuy génn ñuy xeex muy euh, Ousmane Sonko. ay terroriste lañ. Mm-hmm. xam nga kooku baat boobu ku ko yëkkati rek mm-hmm. mooy que ni yow bëggoo jàmm parce que voilà mi ngi noonu ñun Sénégal xamuñu loolu. Mm-hmm. dunduñu loolu. bokkul ci suñuy habitude. nga topp benn nit rek singali ko chaque jour yaa ngi yëkkati ay kàddu yoo xamante ni ñaaw la jëmale ko ci ci moom. à chaque fois saay suy génn yaa ngi gis mesure ak dispositif bi ñuy teg diggante si cité kër góor gi ba tribunal ah, xale bu génn nara gunge sa sa sa nga ne ko yow doo ko fi defee. jël ay lacrymogène domaines yoo xamante ni nii yàgg nañu sentir xetul lak lacrymogène mais yi ñu gis nii cette fois si dafa dafa dafa dafa dafa doy waar ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii yaa ngi koy tegal nit ki nga ñëw taxaw yoo ne da ngay da ngay da ngay woote jàmm est-ce que yow moo noonu di woote jàmm yow bëgg nga bëgg bëgg nga jàng jàmm moo tax parfois yu Marius Sagna dafay wax ay kàddu yu am solo dañu nekk si réew moo xamante ni nii léegi kenn xamatul kenn nga ne yow da ngaa bëgg jàmm ay élection la ñu jëm mhm. yow ñëpp xam nañ ni yow waroo bokkaat mhm. parce que ñaari mandat la ñu wax ne mhm. voté nañu ko ne kenn amatul sañ-sañu def plus de deux mandats consécutifs ñenn ñi ci say ñi nga xam ne dañu nekk ci say gouvernement parfois bu ñuy waxtaan sax dañuy cofaale ne pare nañ à ce que gunge ko mu dem troisième mandat naruloo bokk ci ay élection nga ni diw mi kat bu fi bokkee léegi yow lan nga bëgg finalement moo tax seen i kàddu parfois dafay am solo taalibe yi aussi ñu ko si topp Ousmane Sonko tontu ko lu am solo mooy que ne nit ki ngay ngay wax ne da nga bëgg jàmm tamit bu ko xaj moom li mu bëgg mhm. parce que moom dafa pare pour jiite réew mi pour defar ko mhm. su fekkee ne yow mii ni jàmm nga bëgg mhm. nañu bàyyi ouverture bu bu jotee nit ñi seen i carte d'identité la ñu yor te même koo si neexal ne ko votel ma sax su demee sa biir euh, urne ba mën na def li ko neex kon donc nañu xoolaat bu baax a baax kàddu yi te kilifa yi aussi. Mhm. bu ñuy wax bu ñu bu ñu yem. kase si ñi nga xamante ni nii ñoo di opposition bi état certes mhm. ñoom ñoo yore doole ji mais aussi parfois dafay baax ngay jàkkaarloog ñoom di leen wax li nga xamante ne nii moom mooy dëgg loolu moo fi réalité mhm. am na yoon yoo xamante ni jekkul ci ci ci dëkk Sénégal te boo moytuwul nag lii ñu gis nii muy xeeñ nii wax dëgg yàlla personne ne le souhaite kenn ñaanu ko mais am na nu muy demee tuuti rek ñoom ñooñu ñoom ñooy créer dégâts yi fi nar a am ëllëg. yal nañ ci yàlla musal parce que sëñ Bass Abdou Khadre mu ngi koy wax nee na Touba seen bakkan lañ ci gar. Euh, am na ay ñoñ nit tamit ñoo xamante ni nee nañ Sonko lim leen jaral seen bakkan lañ ci gar kenn ku ci nekk libre nga ci la nga nekk nga dogu ci xaatim ci ñaan ci yàlla. donc parce que li xew Touba musul am wala li xew Mbacke muy lacrymogène man de judduwuma barkaati démb euh, tey laa am na loo xam ne lu ci bëri raw na ma jamonoy Ablaye Wade laa mën a toog ne tali moom laa fekkee. ndax Sénégal tam politique jur na lu nekk lu nekk war na fee mën a am mais liy sumb loolu tamit ak liy wax loolu tamit nañu laal fi góom bi nekk tamit surtout na ma koy bëgg daal tamit waa jàmm moom la ñëpp soxla parce que ñun ñii ñëpp ku ci ñàkk jàmm duñ toog fi naan ñu ngi toog di liggéey wala suñu yaay yi wala suñu papa yi duñ mën a nekk ci jàmm donc ñoom aussi tamit man su ma si di que lii may wax yaa ko moom son excellence yaa nga waxoon ne dafa am ay dossiers yi nga xamante ne da yaa ko teg sa lii sa conc c'est non donc yow boo bëggoon Sénégal stable jàmm am fi léegi billaahi wallaahi tallaay coow li jeex na Antoine li mu wax nii bu ko gëmoon au fond Sénégal du tàkk xale yi du ñu taal Auchan du ñu xeex du ñu rayante du ñu jamante avant sëriñ bi di leen oo ci kaa ñu jàmm wala kaa leen jël sujet bu am solo muy jàmm ngeen ñëw jël jàmm jooju di ko wax ci kilifa diine ak kilifa aada na ngeen ko gëm en personne d'abord taxaw loolu def seen point de presse wax ne da ngeen bëgg jàmm mais bu ngeen point de presse da ngeen di nekk di wax autre chose bu sëriñ si waxee ngeen bëgg a di wax ci loolu tamit fii kenn mënatul ndax kenn tamit que ça soit clair oustaz réew mi yëngu na ku jegi doy na waar ci pouvoir ak i opposition léegi tey suñu kilifa diine yi tamit ñu ngi ci biir dañu koy wax ñii jaar nañ nii kenn ku ci nekk libre na ñii tamit jaar nañ te du ma juumul sama déggin bu gàtt jamonoy Senghor ba tey politique moom ak diine ñoo ànd ndax dégg naa ne araamul xëy na jëf ji moo salte lañ la charia rafetlu wut mooy wëccu lekkaat ak ñàkk jom gi ci biir rek yàlla na ma ko yàlla jéggal ak ñu ma ko sañ a wax nu leen nu leen neex mel di cuubu comme c'est pas possible ñu leen di vaar donc loolu aussi yow di nga ci ñëw ndax am na lu ci chariatul islam yi wax ci loolu tamit ndax sëñ Abdoulaye daan na wax nit waxu daawam ak waxu renam bu ñu ko méngalee mu bokk ñu ne ndax góor la dafa changé ne ndax mosoon naa gore kon naa réew mi yëngu na oustaz. Bambi jërëjëf ci ku am solo gi nga tey. dégg naa la nga wax loo am solo léegi te loo xam ne def nañ ko làmmiñ ñun ñëpp mooy politique ak diine ñoo ànd mais politique gu Sénégal moom àndut ak diine loolu moom na leer bi man politique bi ma gis Sénégal l'islam waxu ko l'islam waxul ni nii politiciens sénégalais yi mel na waa diine dam fekki leen ànd ceeg ñoom loolu moom dooxu yàlla du waxu yonent bi loolu moom nañ ko d'accord xam ko bu doon loolu la El Hadj Abdoul Aziz baax ku ne xam na ni président yëkkati na ay millions jox ko mu delloo ko ko xam nga lu mu doon bañ lekk alalu réew mi te ku ëmb sa sànqal sukaa ëmb sa kersa ñaar ñoo yàq réew ñaar ñooy defar réew yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag waxam laay wax dafa ni sinfaani min ummati isa fasadu fasadal kull wa isa salahu salahal ñu ni ko ban ak ban la mu ni al umara wal fuqaa nee na ñaar ñooy yàq réew ñaar ñooy defar réew yonent bi kan ak kan la mu ni chef religieux ak politicien nee na su réew defaroo ñoom ñaar ñoo ko defar su réew yàqoo ñoom ñaar ñoo ko yàq Bambi dafa am fu ñu toll gis nga euh, euh, euh, thème bi Seydina Issa Laay doomu góor gi Baye Abdoulaye Thiaw Laay yàlla na yàlla kawel aljanaam dama bëgg ñu koy déglu saa ku mën discours la ak bu jot kenn du ko dàqale discours Seydina Issa ku mën discours la te li muy wax lépp day laal góomu senegal mais ñun dañuy bàyyi rek mu dem daaw def na ko mu neex bàyyiwuñ ci xel ren it kazalika bam bi nañu bàyyi jayante bi jayante bi rek moo ñu sonal bu ñu bàyyi jayante bi jàmm dafa am loo xam ne il faut ñu comprendre ko li ñu war a comprendre mooy dëgg yàllaa ko moom dëgg Macky Sall moomu ko dëgg Sonko moomu ko li leer ba leer mooy Macky Sall ak Sonko war nañoo amee staf boo xam ni dina leen firil fi yàllay waxee nguur ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk doole dalaa topp ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk doole dalaa topp te yàlla moo joxe nguur yàlla dafa wax ni qulillahumma malikal mulku tuuti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khayru innaka ala kulli shay'in qadir yàlla nee na Macky Sall nguur gi nga am ba jële fi Abdoulaye Wade bëccëg ndar kàmb laa la ko jox bi ma la koy jox adduna yëpp a ngi daje la pexe moo xalaat Abdoulaye Wade amoon na ko waaye yàlla nee na boobu yow laa jël décision ne yow Macky yaay falu kenn mënta fexe ba doo falu gis nga nag fal googu ma la fal yow Macky bis boo demee ba jàpp ni war ngaa pare ci Sénégal nga lànk ni doo pare fi ngay toog indil waa Sénégal problème yàlla ni wa lu nag da ngay jël bële denn ko ci troisième bi yàlla ne na wa tuzillu mën naa laa sànq dama dem ba sénégalais yi dootuñu la dema dama dem ba loo wax dootuñu ko gëm su boobaa nag ma seetaat kama neex ma jox ko Sénégal loolu pouvoiru yàlla la nekkul ci benn loxo sëriñ nag attention nekkul ci benn loxo sëriñ li xew suba yàlla rek ko xam waaye beneen bi Sonko ko moom na ko waa estafam jàngal xam nga mooy lan yàlla nee na ku ma jëlul décision ne da ngay doon da ngay falu doo ma sa falu nag il faut ñu comprendre li yàlla moom su kaa suñu bëggee noppalu Macky Sall nañ ko xamal li yàlla moom Sonko ñu xamal ko li yàlla moom li yàlla moom na ko Sonko xam li Macky Sall moom na ko Sonko xam ñun askan wi maa ngi ñëw maa ngi ñëw nee naa la man samay kàddu nga fi may gis nii fii ma toog Seydina Mouhamed laa lay seedeloo maa ngi déglu programme mu Macky Sall di déglu programme Sonko. waaw kon ku ma ci ku ma ci convaincre ku ma ci convaincre kooku laa jox sama carte. dëgg la loolu nag ñëwagul excès guñ mais dama lay wax li yàlla lay wax xooluma Macky Sall. xooluma Sonko faraluma ci kenn ñoom ñaar. Mhm. damay wax dëgg yi mooy. Sonko tam na xam loolu. gis nga bis bu ko yàlla ne war a toog. bu àdduna Sénégal gépp dajaloo woon ni Sonko du falu. neex naqari dafay falu. ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw su yàlla dogalee nii. Mhm. dinañu coow ay nit dinañu dee waaye du falu de. neex naqari kenn mënu ci dara. Mhm. léegi nag li tax nag te mu waa kër maam Seydina limaam bi am solo. dafa am fu ñu leen woo moom Macky Sall nañu daw wuyu ji dafa am fu ñu leen woo Sokan fi ñu leen woo foofu la ñu dem wuy ji moo tax sa thème bi am sens nañu dem wuyu ji fi ñu leen woo déggoo la paix et le développement à la lumière de l'enseignement de Seydina Limamou buñ ne la paix mooy mooy islam mooy jàmm le développement mooy tanmiya bi lu ko la arabiya maanaam yokkute boo xamante ni ñu ngi koy jaarale ci enseignement wu ak njàngale Seydina Limaamu kon li am ba am li am ba am mooy bu ñu bëggee jàmm laa wax nañu bàyyi opposition bi bu ñu bëggee mars ñu bàyyi leen nañ mars bu ñu bëggee sitting nañ leen bàyyi ñu sitting loolu état bi laa waxal de état bi laa wax ni bu fekk parce que mënu ma comprendre ñoom su ñu bëggee sitting wala ñu bëgg a def seen yëf bopp ñu def ko problème doo am ñëwee suñ ko bëggee ñu tere leen ko loolu moom ànduma ci loolu moom ànduma ci ñoom de àjjuma ko di dëbb euh, mbàkkeem gée ci lañ dagg suñu signal te sans raison teguñ ko fenn waaw mu ngoog mu ngoog mënoo dog waa Macky Sall Walfadjri gii moo ko may visibilité may ko promotion teel a laa toog di wax jëppee yéeme ma ak Pape Alé nga xam ne le 31 décembre du ma ko fàtte mu ci histoire politique ca 2S moo toog invité la defal la promotion te ñun ñoo la wane woon wane la visibilité gis nga nag ku dul fàttali ku dul fàtte fàttali ko démb ah <laughs> ëllëg dina dina doy waar daal donc nag kilifa nga rien n'est trop tard pour muy sët tamit yàqu dara yemale ñëpp ñëpp sa njaboot yaay père de la nation réew mi boo bëggee mu am jàmm waxuma la kilifa diine wala kilifa aada ñoom buñ ko xaatimee te buggoo ko sax du am mais yow boo ne tey jàmm am jàmm am waa kañ mais nga mboor réew mi yëngu na damaa waaru damaa jommi waaw macha allah euh, waxtaan wi am na solo euh, parce que euh, dañu dem ci li nga xamante ni mooy wàllu kujje goo xamante ni gii laal na ay points yoo xamante ni points yu am solo xam nga sànq yaa ngi koy fàttali rek mhm. que ni diine ji ak li nga xamante ni moom la ñuy wax politique mhm. ci réew mi yàgg gi nga xam ni yàgg dañ ko mhm, parce que euh, depuis jamonoy sangoor ba nëga ni nañ fi sëñ Fallou ak sëñ Babacar Sy mm-hmm. daal di jàppale woon ki nga xam ne mooy Senghor mm-hmm. euh, gis nañ fi tamit sëñ Cheikh mm-hmm. demoon na ba taxawal parti politique ak yu bari bari yoo xamante ni bii euh, jaar na fi waaw mais man damay jàpp ni euh, politique bi jamono yi nga xam ne fa la nekkoon démb donte Ablaye Wade nekk na opposition pendant vingt six ans yoo xamante ne bi mi ngi nekk ci opposition bi mais opposition la bo boo xamante ne bi euh, boo seetee dugg na ci nguur gi ay yoon nommé nañ ko fi ministre def ko fi ay kii yoo xamante ni bi nekkoon nag nga gis ni moom ak Abdou Diouf donte daan nañ tëj kaso mhm. mais daan nga gis ni léeg-léeg mhm. Abdou Diouf xam ni ab Ablaye Wade mhm. am na lu muy posé parce que Abdou Diouf aussi tamit loolu dama koy saluer parce que dama naa xamee respecté woon na mbooloo mi nekk ci ginnaaw Ablaye Wade parce que loolu c'est très important parce que boo gisee tension bi nekk nii yëpp rek mooy euh, dañu bëgg a ignorer bi nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko te loolu buñ ko ignorer rek daf ñuy yóbbu ci musiba la ñuy yóbbu parce que loolu du loo xam ni ay lu ñuy kii la mais lu am la réalité la boo xamante ni dafa fay tey jii ñoom ci seen jëmi bopp xam nañ ñoo la gën a xam ni Ousmane Sonko moo leen gën a taxaw ci miim réew. parce que def nañ ay sondage defati ko. yoo xamante ni bi wan na leen ni sénégalais yi moom lañ jox bopp lu mel noonu nag bu amee ci am réew nag euh, li njëkk mooy nga respecter euh, force boobu nga xamante ni bii force bu kii la boo xam ni yow xam nga ko parce que li tax ñu xam ko mooy essayer nga benn yoon pour ne dama koy tëj. parce que am na loo xamante ni bi essayé nañ ko mënta ne li tax mënta ne lan la askan wi la léegi nag ñu bari nag am na ñu ko interprété daan ne non non boobu dañoo xiifoon boobu jamonoy corona bi la boobu jafe-jafe yi nekkoon nit ñi dañoo meroon ñooñu ñoo lay defaral loo xam ne di la gëmloowaat ne la loolu lu mën a nekk la mais loolu mënul ne tout à fait loolu d'abord pour rek ñu bañ a dugg ci musiba nañ xam ni loolu mënul ne mhm. euh, nguur yàlla moo koy joxe waaye ku ne ak ni nga koy jotee parce que tey euh, bu fekkonte ne bi tey gis nga yàlla yàlla bay sa tool parce que yéen ñi oustaz léeg ngeen nettali ko am na benn waay joo xamante ni bii dafa taxawoon di wax sunu borom pour mu dimbali ko bato ba ñëw di ko jàppale mu ne ko noono yàlla lay xaar kii ba ñëw mu ne ko boo mu deewee yàlla na mu ne ko man ñaan ak li ma jaamu yëpp ñaan na pour nga kii ma yàlla na ko indiwu ma bato indiwu ma lii pour nga jàpp ci dem sa yoon mais defu ko deful acte pour génn ci léegi tey su fekkoonte ni tey ji son Sonko tey mois de mars ba le passé eh, seetaanoñ ko mu ne bon gëm naa justice gëm naa lii gëm naa la wóor na yàlla jamono ji éliminé nañ ko ci histoire politique u Sénégal dañ naan léeboon lu poon amoon na ko fi tudd Ousmane Sonko jiiñoon nañ ko fi léegi même sax bu audio yi demee ba génn dañ ñaan ndeysaan juum nañ ay waaye xoolal léegi li ko dal mooy li dal ay Mamadou Dia ay kii manipuler bi nga xamante ni bi defoon nañ ko euh, ba mu jàll léegi li tax loolu mënut a jàll parce que kenn yoratut monopole li nga xamante ni bi moom la ñuy wax communication parce que léegi nit ñi ñi ngi communiquer seeni portable technologie avancé bi mu avancé mhm. moom moo ko dimbali parce que tey bu du doon technologie tey sànk nañ ko bu yàgg parce que tey jii bu fekkutoon ne technologie eh, yan télé fi ne Walfadjri bii la ñuy wax. Mm. ne peut-être sax mën na génne ay kiom yooyu. Mm. mais gis nga yeneen yeneen médias yi manipulation bi nga xamante ni bii moom lañ nekk. mais lu ñu manipuler suba ba ngoon. Mm. boo yi génne ko teg ko ci internet bi. léegi nag jàmm ji nga xamante ni moom la man jàmm ji. kilifa diine yëpp yi def discours ci jàmm. kenn rek lañ war a joxoñ mm-hmm. pour man Ousmane Sonko mm-hmm. nekkul problème pour jàmm. pour man bu ñuy wax ne réew mi jàmm mhm. ak di joxoñ nit naan ko jàmm mooy ki jeexal ba pare moom nga naan sëñ bi yow moom pare nga ci mbir mi jeexal nga parce que sax bokkaat day indi fitna ci réew dëgg la loolu mooy li nga xamante ni mooy lu ne mhm. foofu rek man foofu lay xaar kilifa diine yi ñu ñëw ci discours boobu mhm. daal dee wax présent Macky Sall ne ko mënatula ne parce yow ci sa bopp def nga fi référendum boo xamante ni bii lan nga wax danga wax ne Eh, kenn dootul mën a te romb lu am lu weesu ñaari mandat daal ne loolu moo tax nga def ko ba noppi ne mbir moom kenn duma ci seen say ministre ñëpp wax ko Ismaïla Madior Fall répété ñu ko ñetti yoon te nemeetu ko wax benn yoon ah yaa ngi dégg eh, ñoom kii bun jonn wax ko Omar Youm Mimi Touré tout le monde ñëw wax ko daal ne léegi amatul may ma ñaari weer ma yeggale jàkka jeeg benn kii <laughs> yooyu yëpp ñoom ñoo ko wax c'est vrai waaw léegi nag ñu toll tey ñu naan noo jàmm-jàmm mel ni léegi benn waaye mooy yee fitna ñu ne kan mooy yee fitna ñu ne opposition maanaam daal opposition bi daal moom néew maanaam tey li ñuy wax noonu bi ñu waxee ne bukki euh, demal jëlali ma euh, ku bëgg góor euh, dafa dem indi jigéen ju wasin mu mi ngi nii kii moom kii moom kii moom ku bëgg góor a ngi xam nga c'est parce que am na doom ah jigéen bu toogu wasin mu indi ko daal ne mi ngi nii comprendre nga c'est que loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li fi ne tey tey ñëpp dañuy wax ne jàmm-jàmm mel ni dañuy xool ne nitu fitna kii la euh, mais beneen angle bi lañ war a xool man pour man wax dëgg fa yàlla jàmm daal tey mën na am ci réew mi mm-hmm. jàmm mën na am te ñun ñëpp dañoo bëgg réew mi ne ci jàmm parce que président Macky nit ñi dañ ko votel ci jàmm fal ko ab Ablaye Wade jóge fi joxe leen ngay ci jàmm ak salaam mm-hmm. du dëgg moom nag man damay wax ne moom mën na am plus que Abdoulaye Wade li nga xam ne moom la am yàlla dogal da fal nañ ko am na lu bari loo xamante ni bi def na ko ci biir réew mi mm-hmm. du dëgg mais nag leneen li nga xamante ni bi moom la defut am na yoo xamante ni bi tey gis nit ñi gis nañ ni même bu defee lii am na lu mu defut mm-hmm. daanu état continuité la kenn mënul def li def na lenn loo xam ne bi tey buñ ko xaymaa moog Abdoulaye Wade mën nañ wax ne ah Abdoulaye Wade de peut-être moom li mu defoon Abdou defu ko waaye ñu ne ah Macky Sall de li mu defoon peut-être kat kii defu ko mm. bëgg nañ ëllëg ñu ne diwit li mu def wax dëgg fa yàlla président Macky Sall defu ko bu ko defee réew mi nekk ci benn lancé boo xamante ne bi kii mais eh, nga bëgg a xëy xëy yow li nga doon kaas démb moom moo taxaw wax ni eh, julli gi juróom ñaari kàbbar la ak juróomi kàbbar xaw ma julli na ñaari kii ba noppi war a sëlmal ñun moom moo ko wax. wallaay ah, ba noppi loolu lépp bu bëgg koo jël. ñu teg ko fële. léegi nag exercer plus de deux mandats consécutifs. waaw xam loolu suñ ko loolu tam saa. waaw ñi ñoom ñu jàng. waaw non non wax ñoom ni jaar ah. gis nga ñoom yow yow. yooyu loolu leer na. Ah, leer na déglu ma oustaz. gis nga yaa ngi leen di may porte boo xam ne ci la ñuy jaar pour jéem a wëndeelaat bopp nit ñi. li ñu wax dafa leer nañ. waaw yaa ngi dégg li ñu wax leer na dugg na ci suñu bopp nit ñi dem nañ voté ko dal di wax ne ànd nañ ci. donc li gën mooy ñu def li nga xam ne moom la wolof di wax. gor ca wax ñu def li ñu ko war a defee mu daa dee jeex. jàmm na ñooy ci mim réew. loolu rek mooy li nga xamante ne bii mooy gi mais fi mu toll yii ñuy topp di ko xëcc. dañuy dugal réew mi ci. fitna te fitna googu. kenn bëgg maam Maodo moo ne nañu sabablu te bañ a sukkandikoo ca yëngu yëngu. lu mu wax sabablu leen te bañ a sukkandikoo ca yëngu yëngu. inna duha adafi donc kon Sonko mën na sabablu yëngu-yëngu mënul ñàkk ndax fii ku fi nekk ci pouvoir rek ñam nga. Mhm. ku fi opposé ñam nga. Mhm. Ablaye Wade demi opposé vingt six ans. vingt six mhm. voilà. macha allah après ñu emprisonné ko def ko ay yëf def ko lu ne. Nelson Mandela noonu keneen noonu keneen Sénégal daal dëkk jaamale yeneen sous-région yi. pays Afrique la fa xew. yàlla nañ ci yàlla musal te ñoom ñooñu ci mën a musal état man yow laay waxal son excellence père de la nation mm-hmm. gis nga réew mi boo ko bëggee zirik ñépp naan da nga koy zirik boo ci bëggee kaani nag wax dëgg fa yàlla am ah am na ñoo xam ne du ñu kaani de dëgg neexul nañu defaraat toogaay pour recruter pour ministre solution bi euh, lan lañ jàpp mooy solution bi solution bi mooy man li ma jàpp waaw mm-hmm. solution mooy li ma jàpp tey son excellence oustaz bu ne na réew mi apaisé am jàmm mu am ko xam nga nit munoo wujje ba ah. yegsi fi nga yegsi mm-hmm. nga am réew mi ñu fal la ci anam bu rafet mm-hmm. yow nga ne doo wujje au nom de quoi mm-hmm. la wujjee di tàndal ki nga xam ni moo leen di yoraat. waaw bu ma fi jógee. loolu munul ne. bu ñu kenn jéem a tànnal. loolu c'est pas nañ bàyyi sénégalais yi ñu tànnal seen bopp ki leen doy. Mm-hmm. point. waa Layeen bi wax na ko nee na carte yee fal urne yee fal nañ dem ci urne ya am na ko ci wax nag léegi da bëgg a éliminer ay nit ñoo xam ne dañoo war war a dem urne ñi nga jël lépp emprisonné la mais c'est pas bien. donc ñu koy mën a ay élection yoo xamante ni bi kenn xamul ana kan ak kan moo war a ba pare bu ñu fi indiliwaatee euh, euh, parrainage dina am yeneen ñoo xam danañ leen éliminer te Khalifa Sall dafay li taxoon ñu tëj ko tëj bu yomb dafa ñëw def innocent ñu ñëw na ko burux yóbbu Sonko nag dafa def jardin mm. <laughs> kaay du ñu benn tubaarkàlla <laughs>